waaw ci loolu rek Cheikh Bamba ci laay rebondir parce que ku mhm. wax formation au niveau national. Mhm. ay déplacement. Mhm. ci région yi. déplacement ci région ak formation beeg li ci aju yëpp. ay jeunes moo te vraiment association Fils ak Cheikh Bamba depuis loolu ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy dox mais est-ce que da am financement bu jógee ci état. bu leen di tax di mener seen action yooyu wala da koy def ci seen propre moyen. waaw Bachir wax dëgg yàlla bu ñu waxalee yàlla. suñu propre moyen lañ koy defee franchement état nag ci lim ñu jàppale pour muy leer pour communication bi ñëpp xam ko signé ñu ñun ay convention parce que tey mbër bi bu fekkoon ni moom moo jugoon bëgg dem fayali boppam formation dina fay tey bu dee sécurité garde corps rapproché bu dee 3 mois rek di nga fay 500000 wala lu ko ëpp tey ñoom bu ñu ko defalee gratuitement kon dañ leen ciy sant bu baax di leen gërëm mais ñoom ay partenaire technique lañu foofu la ñu mën a yem mais ñun dañuy tàllal loxo état parce que lépp lu ñuy def rek wala fépp fu ñuy dem tey euh, ñun ñoo suñuy suñu doolee bopp lañ koy defee te li ñu bëgg def nii mën nañu état la ñuy jàppale parce que dañu bëgg créer emploi kon nag kooku ñu ngi ñaan état muy ministère yi di président de la république mu defal ñu ay subvention jàppale ñu dooleel ñu ba fépp fu ñu bëgg yéene gi ñu am ñu mën koo àggali yaakaar naa ni bu ñu amee fukk association yu mel ni ñun wala wala buñ wala vingt association yu mel ni ñun buñ ci jàppalee président réew mi rek yaakaar naa ni Sénégal xale yi du ni ñëpp dinañ xëy waaye mën nañ ni ñi ci ëpp danañ xëy te li ñuy ñaan mooy ñëpp xëy loolu lañ bëgg quoi Bachir. Cheikh Bamba dafa mel ni formation forum yi waaw non du dakk parce que li li ma la wax rek dañu nekk ci mission boo xam ni mission bu am solo la mission bi euh, kilifa diine yi dañ ci ñaan ba pare wax dëgg yàlla bi bénir ko ba pare kontaan ci euh, li ma chaque jour rek. Euh, di ci gërëm suma Serigne Serigne Abdou Karim mu sëñ Fallou di ko ñaanal yàlla fi yàgg loolu tànd ak wér bi ñu ko seeti jee en 2016 waxtaan ci ak moom daf ko rafetlu ne wax dëgg yàlla promoteur yëpp ñu ngi fiy ñëw ñu ngi promouvoir jeunesse bi mais man li ma bëgg def nii jaamu yàlla la parce que na nga ni da bëgg a jàppale ay xale ñu am formation am xëy pour dimbali seen ay wajur ak kooku moom nee na ngi koy bénir et incha allah dina barkeel moo njëkk jël mu wax dëgg yàlla def ci ci def ci lu mel noonu kon nag moom loolu mu ci yéene ba def ko yaakaar naa ni ñëpp war nañ cee mën a def parce que ñun yéene gi ñu am Bachir mooy 14 régions Sénégal yëpp la ñu bëgg wër suñu yéene mooy xale yëpp. ñu jéem ñu forme leen waxtaan ak ñoom parce que yooyu noonu moo mën a sensibiliser yooyu mën a euh, yooyu ci yooyu nga mën a waxtaan ak xale yi boo nee forum ci nga mën a waxtaan ak xale yi ba ñu toog parce que xale yi ñu ci bëri dañoo comprendre wul mais koo ci dem waxtaanal ne ko ah ñun yoon bi boo ci jaaree parce que communication boobu dafa am solo yoon bi boo ci jaaree boo ko defee nii boo ko defee di nga am formation boo defee nii parce que tey li fi ne bëri na parce que ñun tey dañu am convention dañu amee convention ak euh, ONFP ak euh, ANAMO ak 3FPT ñuy former noonu lañ ko amee ak direction de l'emploi mi nga xam ne insertion la ñu wootee xam nga kon nag yaakaar naa ne yooyu noonu euh, buñ bu ñu amee yéene bi pour wër 14 régions Sénégal yi tey président bu ñu dooleelee dina gën a baax yeneen dooleeku direction horticulture muy docteur Macoumba Diouf tey nee na ci wàllu fruits ak légumes moom pare na tey pour def ak ñun convention pour dooleel ñu. ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga ministère du tourisme tam yooyu yëpp ubbeeku na ça ko dire que kon état gën nañoo ubbil bunt yi mais li ñuy ñaan rek moo ñu defal ñu ay subvention bu ñu ko defalee yaakaar naa ni daal fi ñu bëgg a àgg incha allahu rabi dinañ fa àgg ci kàttan yàlla bashir